ba pare eh, li ma si gën a jaaxal mooy que ne. Mhm. ñu ne Pape Ndoye combat bi date da koo bett pare xam nga wax nga tey ne expliqué xam nga wax nga da nga feebar jël nga kii xam nga loolu yëpp euh, mais tamit Pape Ndoye gars yi ne ba date bi dee. gars yi ñu bari ne Pape Ndoye parewul. Mhm. parewul te ñu gis si combat bi ni mu amoon ak Jackson xam nga. Mhm. combat bi ñu naan Jackson bu jàpp Pape Ndoye boo jàppee Jackson ne la jëlal lépp. xale bi nag xam nga macha allah nag xale bu waalo bi nag muy Jackson ñu koy nuyuwaale au passage de nuyu ñoom ñëpp ku ci mel ne am suñu papa ko bégee bu baax a baax gars yi daal waa géejewaay poñe na mm-hmm. ba pare ñu dégg sax am na koo xamante ni sax euh, da cee géejewaay la dëkkoon tamit ñëw takk si combat bi faral Pape Ndoye kan la ah, fa nekkoon kooku ah yow laaj naa la ko yow mi ah, wax kay yeggaleel rek géejewaay amoo fa benn kii benn turandoo waaw Géejawaay waaw maa ngi koy nuyuwaale sama toma Pam Ndoye 2 maa ngi koy nuyuwaale di ko ñaanal ko ñaanal mu nekk champion bu mag a mag waaw incha allah léegi waaw combat bi li ma la wax noonu la man dara lu ma ay lii walla lii man man man man lijjantiwuma benn mbër man lijjantiwuma kenn man lépp lu dal sama kaw rek du kenn ku moo ko teg ku dul sama dëgër bopp man sama dëgër bopp man ak sama fit lu ma dal loolu moom ma ko teg. mais man am man am na loo man combat bi berte nañu bari mais bertu ma man wax naa la ko te dama la koy waxaat berte nañu bari mais man xam nga tax lenn daal moom laa xamante ne nii berte na ma ci combat bi lenn laa xamante ni berte man gëm pour man man mën naa bëre ba bàyyi bëre te kenn du ma dóor ma daanu. soo gisee combat bi mu mu am nu mu demee nii. c'est parce que man maa wanteer sama combat. li ma wanteer sama kombaa mooy am naa ay blessure nëbbu ko war naa entraîner entraînement yoo xamante ne nii euh, kii boobu defu ma ko wan naa la audio bi man ak Père Tafa Gueye bi mu may woo ba bi muy wax ba ba mu naan samay wax ku ko weddi di nga ko gis boobu combat mi ngi des 2 mois. ba ba muy des un mois mi ngi waxtaan ak man di ma woo te demu amul benn yoon bu ma ci dem saal musculation wuyu ju ko waaw amul benn yoon boo xamante ni dem naa ci. musculation wuyu ko Jackson war naa man dara war na maa mën a bañ a dal dara war na maa bañ a bañ a metti Jackson ñëw dóor ma ma daan war naa mën a nekk mais boo déggee man la man bert na ñeneen mais bertu ma man c'est parce que man sama jëmi bopp li ma bëre ji waalee bi ma toog bi ma paree ba toog la may doog a metti ah, waaw dama see def jàngat def ko si yàgg naa ko def si ay combat di daan kon su ma ñëwee mu demee nii damay xam ni yàlla moo ko dogal dafa war a daan mu daan amul problème mais soo gisee may leeral wala ma ciy waxaat sax du du du adversaire yi ñoo tax wala kenn encadrement bi nekk sama ginnaaw bëgg a jël baatu ma maanaam aw ma jomu entraînement wala damaa nekkoon ci lu ma neex loolu moo tax may leeral ci combat bi loolu moo tax may waxaat ci combat bi mais amaana bu dul woon loolu sax damay ñëw sant ñi ma jàppale ci combat bi gërëm ñi ma jàppale sant samay waajur dem sama yoon xoole leneen lu ma def mais soo gisee ma toog di leeral ci combat bi lool dong moo tax ma toog si di leeral. après ah, ah. man ak Père boobu ba tey waxtaanuñu man moom lu may wax rek day leer waaw non te astafurlaa tase nañ saal dem naa dem naa gunge naa la grosse salle musculation muy entraîner mu ñëw foofu mu ñëwoon foofu di ko xool si après ma ma wax ko foofu waaw ma wax ko ci tuuti rek. Ah, non déggante watuma moom bi combat bi jàllee. woowu la waxu la félicité wu la encouragé wu. waaw c'est parce que xam nga lu tax félicité wu ma encouragé wu c'est parce que dafa jàpp ne damaa nekkoon ci lu ma neex te xamul ne nekkuma woon ci lu ma neex damaa nekkoon ci loo xamante ne nii moom ma gënoon ñor ko combat bi moo taxoon nekkuma woon ci combat bi ndax man sama bopp a gën a làmb sama bakkan moo ma a làmb. ma am jàmm di nekk sama jàmm moo ma gënal concentré wu ci làmb te xëy na ñoom su ma leen ko waxee woon noonu dina am neneen nu mu demee moo tax mën na boon loolu lépp waaw. Jackson Junior daal a bëri wax ak ñoom ñu gis ne dépp la Jackson bëri daanee ba léegi ñu bari ñi naan du mbër rakku mbër la mais du mbër xam nga. Mhm. entraîné wul da koy dégg parfois ñu sax ñu ngi ci xale yu jigéen yi mais après loolu. nan waaw fii moom wax moom yàgg na fi kuy bañ ko la waxal rek ñépp la ñuy waxal yonent bu tedd bi sallallahu taala alayhi wa sallam sax dañ ko doon tuumaal te ba tey ñu ngi koy tuumaal. ak keneen ak keneen kon buñ tuumaalee Pape Ndoye ñu teg ci deru Pape loo xamante ne nii du noonu man du ma ci sori damay ree rek dem sama yoon àdduna moom noonu la mel rek foo ne am nga fa ay soppe am nga fa ay ennemi waaye say soppe nañuy tax chaque jour ngay rayante ñoom ñuy bëgg yaa ngi may dégg àdduna man noonu laa ko jàppe kenn ki la bëgg jar naa daw ba dee tax ñi la bañ man noonu laay dunde noonu laa mel instant bi foo jëm parce que gis nga instant bi euh, am na foo nekkoon ndax gis nañ ni combat bi am na leen lu la mënoon a apporter bi kii nga ko mu tuuti am na feneen fu la teg ndax dañ naan ku daanu day xaar. Mhm. ku daan dem instant bi mhm. yow PAM doy da may booy yi nekk ci suuf di la laaj parce que booy nga sax mais tey instant bi PAM doy fan nga ci booy yi nii ñoo nekk sa kanam. man man na ma doon bëree di daan dama ciy delluwaat. Mm. waaw na ma doon bëree di daan dama ciy delluwaat ndax mooy Lac dama ko doon bàyyi rek moom mu ñëw rek ni ma lii la mais damaa dem ba benn instant moom si jëm boppam sax boo xoolee da koy xam sama comportement dama bëgg a bëree damay bëree damay def nii xam nga ndax bëgg a bëree quoi déretu moo nekk ci man man dama bëgg làmb damay feebar sax di bëre mbapat. mais loolu garaawul. ñoo ngi fii lépp dina leer loolu garaawul man daal li ma gënoon a intéressé ak li ma gën a ñor mooy sama gaay yi sama gaay yi nga xamante ni moom sama ndam seen ndam la sama defet seen defet la te combat bi taxawu nañ ci woo ma ci nu ne entraînement te demuma ñoom ñoo tax ma bëgg a leeral lii pour wanoon leen lii moo taxoon ma bañ a dem entrainement loolu moo taxoon tegal naa la ay vocalu père bi may woo entraînement dama lay tegal ay vocalu kii kan la général général fan laa koy teg mooy Pape Ndoye bëgg nga di dem matinal yàlla na yàlla may ndam. Pape Ndoye ñëwal ñëwoo ñëw nañ ñu ñu dem kese la laajte <laughs> waaw mais Pape nga ma rek mais garaawul dañ ko bàyyi ba beneen yoon rek. bi moo ngi nii. ñoom ñëpp am na yeneen vocal yoo xamante ni mënuma ko wane ay jéggi siraat. ay yeneen gars yi nga xamante ni combat mooy préparé man ak ñoom ñoo koy préparé ndoo. mais vocal yooyu am na vocal yoo xamante ni dafa amaale ay saaga ay débordé ndax seen xol tàngoon na quoi ndax ñi ngi may woo di ma woo di ma woote demuma ba ci général mi gis nga ko waaw parce gis ngeen éclaircissement yi nga xamante ne def na ko ci combat ak Jackson ndax dëgg yàlla wax ci bari woon na trop mais nee na leer Jackson nag comme dafay félicité bu parce que xale la dafa nekk ci yoonam nekk moom boo xamante ni yàlla dafa bañ parce que ku daan Pape Ndoye rek wax dëgg yàlla ñu koy jaajëfal bu baax a baax te xam naa après ci jëm si di ko déggee bu baax a baax ndax émission bi tey a baax suma papa doon suma xarit daal yàlla sa jàmm yàgg ak baax a baax mais Pape Ndoye ay sax ah, ndax yow léegi-léegi ko ci loxo nga xamante ne mooy mais am na si yoo xamante ne instant yii sa kanam ndax sa combat boursier gars yi ñu ko doon Euh, déggoo xanaa déggoo lima li ma la wax Fatma Dia dama dama dama wàccoon yoon jëlal sama bopp def ko ñaari yoon mën naa ne sax ñetti yoon baaxul moo koy bàyyi lagros dama doon dem mbappat sax mu ne ma tey bul dem mu ne ma soo demee boo fa amee xaalis boo ñëwee maa la siy ëppale sax xaalis la mais maa la siy ëppale kon su ma la nee bul dem rek bul dem bàyyil ma dëgër bopp dem ay mbappat yu bari ma dëgër bopp ànd ak booy yi jël sama saag dem bëre ji xam nga jël leen ñoom ñëpp du ma ci wax kenn lii moo may metti wala kenn lii gars yi may àndal salle musculation wala ñëpp ku si ñëw damay ñëw rek kamu fële nandite damay voyage wala damay def lii wala damay def lii ba dem wala ma dem sama benn kër copain toog fa comme si que dem naa te demuma loolu laa bëggoon leeral ma ciy jéggalu samay supporteurs bu baax ndax du cër du respect di si jéggalu encadrement bi di si jéggalu ñëpp waaw képp koo xamante ne nii defetu fa am metti na la rek maa ngi la siy jéggalu bu baax a baax a baax te nuyu ñëpp parce que combat bi ñi si jàpp dafa bari. mais Pape Boy ñoom ñoom pour si. dafa jàpp si combat bi bu baax Fall maître Ba maître Ba avocat. dafa jàpp ci combat bi bu baax a baax l' avocat de la jeunesse. mais waxal si booyee lañ ay jàpp nañ ci combat bi bu baax a baax sam suñu maman Ndeye Sali. jàpp na ci combat bi à part la grosse jàpp na ci combat bi bu baax. waaw yaa ngi dégg ñu jàpp ci combat bi daal bari na. dama man sama combat yi ñuy dox bari na. sama combat yi ñuy dox bari na mais soo gisee taxawuma ci waxuma ci c'est parce que dafa am lu desoon ci man. ci lu ma nekkoon di ci concentré wu ci lu ma doon métti ci sama yaram man ba ma yëkkati sama téléphone man wool sama bopp Père Abbas Ndoye wax ko ko moom mi may dégg mu ngi seetaan dina gis ma wool ko ko wax ko lépp lu ma dal parce que réseaux sociaux la quoi am na loo xamante ni da nga koy wax am na loo xamante ne nii sama vie privée la sama métti la duma ko wasaare ci àdduna duma ko wasaare ci réseau sociaux yëpp ñi ma ci war a waxtaanal waxtaan naa ci ak ñoom ba ñoo ngi ci woon ba sant yàlla am na lu ci des nag mais man chaque jour maa ngi sama bopp dootuma dara dootuma metteeti may jël charge naan damay def lii wala damay def lii non dootuma dara sama àdduna loolu moom jeex na su ma bëre woon combat bi daan ko sax dootuma ko defati gars yi merewoon Pam Ndoye parce que xam nga ne moo tax dama leen koy fay incha allahu bi dama leen koy fay parce que maa ngi sama bopp maa ngi concentré wu sama bopp ma demuma ma su ma génnee ci sama bopp laay nekk lijjanti sama bopp xool sama wér-gu-yaram ñëw nekk samay entrainement ànd ak ñi ma war a àndal Lac Rose ak Gris noonu lañ sonne ci combat bi barke alxuraanu karim noonu Gris 2 noonu la ci sonne Lac Rose tamit même lu ma mënti jël te arrangé wu ko tamit dina dem ba ba ci biir bu ciy dugg deret moo ko ciy dugal parce que fi ma teg la am na fu ma teg fu garaw waaw ah, sama ndam sax moo ko gënal ndamam te ay millions lañ koy fay. dégg nga sa mbër waaw du état mbër garaawul ku ci nekk ak ni la yàlla bindee man nii la ma yàlla bindee man nu ma mënti entraîner nu ma mënti def nii la ma yàlla bindee nii laa mel. Gris gis nga ko day entraîner noonu la ko yàlla bindee. noonu la mel yow gis nga ni nga gàtte nii noonu la yàlla binde nga gàtte ku nekk ku nekk ak ni la yàlla binde ah. man insha allahu rabi moom après dinañ gis am na loo xamante ne nii lu ñuy wax la am loo xamante ni lu ñuy jëf àdduna di gis la man damaa nekk ci moment boo xamante ni nekk naa ci moment boo xamante ni du ma wax parce que Seydina Muhammad li ma wax fii nii yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp man toog naa analyse ko man bugguma ko woon wax man bugguma ko woon wax mais dafa am ay nit ñu nekk suñu ginnaaw ñoo xamante ni waruñoo jël baatu tuuma comme dañoo ñàkk jom wala ñun du ñu entraîner ba ngay dox si mbedd mi sax ay nit di la ko wax. entraîner waaye sa combat bi entraîner woo defoo nii xam nga kàddu yooyu noonu kenn di la ko wax kenn di la ko wax kenn di la ko wax kenn di la ko wax bu yàggee boo tëddee da lay metti da ngay bëgg taxaw nag wax. man bu fekkoon nit ñi ci mbedd bi la sax amul problème mën naa koo muñ ñoom mais ñi nga xamante ne nii am na fu ñu la teg ku si mel ni ñoom père Tafa Gueye ñoom père Abbas Gueye encadrement équipe face bi yëpp nga ñëw mu am na mu demee ñu lay woo entraînement demoo kon ñooñu boo leeralul rek wala waxoo rek kon léegi day mel ni mën nga amaat combat beneen yoon ñu mu bañ leen duñ ko teg buñ ko war a teg parce que dañ naan waaw parce que dañ naan boo déggoo père ci audio bi wax na ko nee na yow entraînement ñoru la entraînement ñor na ma mais instant boobu noonu su ma waxoon rek combat am parce que Seydina Mohamed su ma waxoon man man su ma waxoon combat am man ba ci médecin bi ma doon dem bés bu leen neexee bi ma doon sàkkatu di fa dem du ma ànd kenn bés bu leen neexee incha allahu rabbi mën naa leen faa yóbbu boo leen demee mun naa leen joxoñ joxoñ leen turam joxoñ leen ko dem sama yoon wala ma wax leen fi mu nekk ngeen dem fa man lépp lu may wax day leer. làmb làmb làmb dafa neex. làmb dafa neex. waaw dafa neex ñun dañoo bëgg làmb dañuy dund làmb te incha allahu bi lépp lu ñuy gëm teg ko suñu bët ci làmb rek man gëm naa ni dañ koy jël incha allahu bi parce que gëm-gëm la daanoo daan su ma teg sama bët incha allahu bi chaque jour dama koy ñaan yàlla suñu boroom. iñaan nag dafa yàgg ci àdduna iñaan ay nit di la bañ fii wala ay nit loolu kuñ ko deful sax war ngaa tiit waaw war ngaa tiit ci sa bopp nit koo gis di nga am critique dof bi toog fee su mi ay yeneen sax dañ koy critiquer man am na yoo xamante ni du ma ko lijjanti nii laay def je m'en fous laay bind sama yére dox sama dox xooli nekk sama kanam moo ma gën a intéressé man li nit ñi di wax am na yenn nit yoo xamante ni li ñuy wax du ma metti de man li may metti dëgg-dëgg mi ngi sama yaay wala ci sama ñii ñoo mën a wax lu may metti barke Seydina Mohamed man ñii laa gëm kii laa gëm moom laay dëkk samay loxo su ma amee lu ma metti ci moom laay ñëw xool ko jàkkaarloog moom ni ko ñaanal ma mu ñaanal ma ma dem sama yoon leneen lu waaye wax baax na. làmb yàquwul la yàquwul yàqu làmb xanaa mbas li fi jot a ñëw rek li fi jot ñëw la rek te li fi jot ñëw du lenn lu dul. yu ñaaw yi nekk ci dëkk bi yenn yu ñaaw yi nekk ci dëkk bi rek moo tax war nañu gën a xoolaat war nañoo gën a xoolaat doxalin bi xoolaat yu baree baree baree bare ñu bàyyi ko parce que kenn merul ku dul suñu borom moo fi wàccee lii kon bu wàccee lii nii nit ñi war nañoo gën a delloowaat suñu xel si yàlla di julli di ñaan di tuub bàyyi wax lu dul dëgg di wax dëgg waaw looy am nga am nga ut ko liggéey ko ñàq ko man damay liggéey man lu ma am dama koy liggéey man du tàllal kenn sama loxo du ma ma ñaan. may liggéey faay. waaw am naa métier man tapissé laa. tapissé laa damay liggéey. waaw. ci loolu la ma sama yaay yar ci loolu la ma sama papa yar. fayet liggéey nit ñi nañ gëm seen bopp nañ liggéey nañ jaamu yàlla nañ bàyyi di jël doomu aadama di teg ci deram lu ñaaw loolu dafa ñaaw loolu baaxul nañ bàyyi loolu man kenn gënumaa bëgg sama ndam man maa gën a bëgg ndam ñëpp waaw mais xëy na liy tax nga dem bëre ji loolu man la man la concerné sa ça le problème ah, euh, waxtu jeex na parce que tamit tey dañuy ñëw ndax gis nañ ni depuis le break Jackson Junior ba bi xat na def nga mais ba dafa tàggoo dafa baax dafa de junior seen bopp ba du def ay ñu gis ne loolu nan ko gisee euh, journal de junior feebaram bi tamit est yaa ngi koy téye yaa ngi koy nemmeeku wala tamit euh, est-ce bëri yi am ngeen euh, waaw benn benn benn instant Jules Baldé Junior dañ koy ñaanal dañ koy dama koy ñaanal yàlla yëkkati ko parce que ndaw la loo xamante ne ni man boog lii ko dal man yéenewuma ko ko. barki Seydina Mohamed jàmm laa yéene ñëpp ak salaam laa ko yéene te moom laa koy ñaanal ndax lii ko dal man neexuma daf maa metti mais na ko jàppee ni yàlla suñu borom moo ko ko teg nattu la boo xamante ni mënu ko woon jaas faw da koy dal léegi nag ginnaaw dal na ko ba pare man part bi ma ci am boog sama part bi nga xamante ne am naa ko ci pour wax ko ci maanaam su ma si dee wax ci benn côté làmb làmb daf koo war a jàppale moom Jules Baldé Junior parce que espoir la boo xamante ne nii dafa nekk si làmb kon espoir bu nekk ci làmb ñëpp xam ko journal yi di ko bind média yi di ko seeti kon kooku noonu bu amee lu ko metti làmb daf ko war a gersu su fekkee gersuwu ko war na koo gersu wax ak moom autorités yi nekk si réew mi tamit war nañ koo gersu jàppale ko parce gisoon nañ fi kaaw saa Kajoor gis nañ fi kaaw Jules Baldé Junior ak kaaw keneen ak keneen te ñooñu ñëpp da ngay gis ni keneen mooy jóge fële ne leen ñëw soutenir même bu leen keneen di soutenir làmb dafa war a def paaram parce que ci làmb lañ nekk ñoom ci làmb la liggéeyal même bu dee ñetti dërëm wala fukki dërëm liggéeyal nañ ko làmb kon ñooñu bu dara dalee seen kaw rek làmb war na leen a gersu taxawu leen jàppale leen ci lim mën mooy yoon waaw loolu dafa metti trop dafa metti li daal Jules Baldé nii ak keneen ak keneen ak keneen làmb war na leen taxaw parce que ni ko dalee noonu man ñaanu ma ko yàlla mi mën na maa dal mën naa dal keneen mën naa dal keneen ak keneen mais tamit kon nii rek lañ lay def tamit te du yoon boo nekkee di liggéey ci mbir ba dara fekk la sax ca ñan ca nekk na lool war nañ laa gersu jàppale la waaw. loolu instant bi sponsor yi tax sax cachet nga ak coowal làmb ji yi moom dañ war a ñëw ci làmb ji incha allah waaw dañ war a ñëw jàpp mu gën a neex rek waaw ndax buñ ñëwul tamit. ñi ngi bëre suñu ñëwee tamit day gën a neex kon nañ ñëw mu gën a neex ndax lépp ci dëkk bi la rek dëkk bi gën a neex ndax xam naa ne doom dëkk bi am nu muy dunde wala am nu muy demee ci succès ci xaalis loolu noonu ñoom seen ndam la ndax lépp ci dëkk bi lañ koy la nekk rek ba tey te ñun doom dëkk bi ñoo koy liggéey kon lépp mën naa gën a rafet rek ñu liggéey mu rafet ñi ci état mën a chantage ñu dugg par force ñu dugal seen loxo mu defal leen ko ñu dugg par force waaw parce que man dem naa Europe dem naa feneen ak feneen am na yoo xamante ni da ngay sponsoriser par force da ngay dugal sa loxo par force yooyu yëpp mën naa nekk waaw ñu dugal seen loxo. waaw émission tire à sa fin bon li ma ciy tàggatoo du bari sama yaay maa ngi koy du ma jóg ci di ko sant di ko gërëm sama yaay. maa ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal gudd fan ak wér di ko ñaanal lépp lu mu bëgg lépp lu ko Lac defaral rek lépp lu ko Lac defaral ci teraanga man bëgg naa koo defaral muy kër muy oto muy biir màkk muy lépp loo xamante ne ni xalaat naa ne neex na ko man bëgg naa koo defaral ci barke yonente bi maa ngi koy ñaan yàlla suñu borom man su ma ko su ma ko defaralee yooyu rek man su ma neexee man damay tëdd njaaxaandaay man moom laay dawal moom laay daagul moom laay bëreel moom laay summeekul moo tax may entraîner parce que Seydina Mohamed moo tax may rayante kon su ma ko defalee li mu bëgg man dootuma lewtoo ci àdduna parce que fu mu gën a gaawe rek foofu laay xoole pour bégal ko muy sama yaay di nduyu pam maama sonn ko ci bi sama papa sama yaay ak sama papa waaw maa ngi leen di sant di leen nuyu bu baax a baax a baax a baax li ma wax ni moom laay defal sama yaay maanaam ñoom ñaar laa koy boole ñoo ko bokk waajur ñaari waajur fonkal say ñaari waajur ba teg leen fu leen kenn mënul àjjee dama fonk samay waajur ndax samay mag ci loolu laa leen fekk samay rakk ci loolu laa leen fekk su ma ci nekkul rek damay wàcc yoon moo tax samay waajur foofu laa leen teg sama yaay ak sama papa di ci nduywaale waa Caaroy di ci nuyuwaale ñëpp Pape Mama nday Sali Babacar Sarr sama mag boobu nga xamante ni lépp lu ma mës a wax ci àdduna rek gis naa ko nit ku baax nit ku yéene nit nitu jàmm nit koo xamante ne nii deful dara ngir dara lépp lu mu def rek yàlla moo tax mu def ko te lépp lu ma mës a wax ci àdduna rek gis naa ko maa ngi koy remercier saar Saara Babacar Sarr maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax nit ku baax nga yàlla na sa jàmm yàgg yàlla na sa fan gudd. dund nuyu ñëpp ñu jàpp ci komba bi. Lac hôtel Arc-en-Ciel Rose jàpp nañ ci combat bi maître Ba nii ma mel gis nga moom ma ko def jàpp na ci combat bi bu baax Alaaji Cuun Bob Marley Mbaye. fàtte naa takk sama airpod yi. suñu xarit la wax dëgg yàlla lépp lu ñu bëgg rek la ciy dox. di ko nag liggéey bu baax a baax moom amul jóg. mu nekk suñu conseil soulagement. ñu euh, sant moom ci li nga xamante ne moom mooy ci terrain bi mu nekk suñu xarit la ba nga xamante yàgg na te lépp dafa fekk di ko ñaanal bu baax a baax mu nekk ci buzz. buzz euh, buzz bu bu bu buzz ah bu may buzz. waaw bu gi sama raq Zidane. a kon dañ koy waxee rek à chaque fois muy façon suñu Zidane góor gi. yow fu ma la la maag yow tey maa yow ba kilifa daal kontaan naa ci yow bu baax a baax mais Basirou dafa am koo xamante ni suñu promoteur la nekk le jeune promoteur muy jamaïcain di ko souhaiter joyeux anniversaire nan la xam ko Fatma yow nga dund cent ans sans ordonnance ni comprimé da ngaa baax lii mënu ko ñàkk bañ wax. dëgg la mais di ma may lii nii. wiis ibu mënu ko ñàkk baña a. dimbali ma dimbali ma rek wiis ibu mënuma ko bëgg baña a ñàkk ah, remercier iPhone 7 la yëkkati 7 plus may ma ko wiis ibu 88 jàpp daf may jàppale bu baax a baax di jàppale la di noonu lay sonnee ci affaire yi ñu ngi koy. wax ni ko daal. Medina na gën a jàpp dina baax ku bëgg lu baax rek demal foofu rue 13 bis. kon ñun tam waa Wassare ñu ñëw nga defal teraanga Bassirou Diouf sama cameraman bi kontaan naa ci yow de Wassare kese Fatima kese Pape Ndoye merci beaucoup.